jàmm fii ci biir Dakar Media TV comme ni ñu koy defee à chaque fois di leen toppal actualité yi en temps ñu dooree li nga xamante ni moom moo gën a fës ci actualité yi euh, niki tey muy euh, Sonko ak euh, daje bu rëy bi nga xamante ni rek am na kook ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo nekk ak moom fële ca. Euh, Pastef ak la jeunesse tem bi nag nekkoon euh, apport de la jeunesse dans le projet fële ca esplanade bu Grand Théâtre moom Ousmane Sonko nag indi na ci ay leeral yu bare bari lu ñeel ni nga xamante ni rek noonu lañu nar a euh, gouverner fii ci réew mi neen nag lépp dañ koy daal di teg ci yoon maanaam yoon def li nga xamante ni rek moom mooy liggéeyam waaye nag bu nu yaakaar ni rek dañoo toog rek di seetaan maanaam lépp li nga xamante ni rek am na fi ci réew mi muy ay nit yoo xamante ni dañ leen a faat Fulbert euh, Sambou faat leen ci anam boo xamante ni ba tey xamuñu euh, ñan ñoo def loolu loolu yoon dina ci def euh, liggéeyam ba ñu xam ñan ñoo faat ñooñu waaye nag li nga xamante ni rek moom moo ñeel nervi yi nga xamante ni ñu ngi ko fi doon dégg ñu ci dégg nag version bu nekk ku ci nee naan ñii ñoo leen recruter keneen a leen recruter waaye nee na loolu lépp dina leer moom Ousmane Sonko nag daal dinay dal bu baax a baax ci kaw opposition bu Sénégal bi lee nee na opposition amagul Sénégal te mi ndax nu mu gisee gars yi di opposé woo du lenn rek lu dul séparé Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni rek moom mooy Bassirou euh, Diomaye Faye opposition lay mel ni ñoom maanaam débat d'idées lay doon euh, contradiction d'idées lay doon waaye nag du nekk loo xamante ni rek da ngay toog euh, naan Ousmane day jiite ki nga xamante ni rek moom mooy Diomaye ba mu jugee nag ci li nga xamante ni rek moom mooy opposition moom Ousmane Sonko di nay ñëw aussi ci li nga xamante ni rek moom moo jur jur jàng ci réseaux sociaux yi fan yépp muy këru taskatu xibaar xibaar yi muy wàllum euh, fay l'impôt moom nag jàpp na ni fay impôt bi par force lay doon ndaxte rek mënoo yor entreprise ci Sénégal yor say employé di weer bu dee di leen dagg impôt ba noppi rek di jël mbir mi di ko damm sa poche doo fay état bu Sénégal loolu dafiy jeex tàkk li nga xam ne nag moom moo fi nekkoon ci yenn euh, patron de presse yi di chantage nguur yu fi nekkoon ndax bañ ñu bindal leen naka su noonu moom loolu euh, dara ñor ko ci lu leen lu neex waaye nanga bind waaye nag bi dañ koy fay woon woon ni na moom Ousmane Sonko waaye jugu ci nag dal di wax xamal na journaliste bépp boo xamante rek da nga yor euh, maison de euh, presse di bind lépp looy wax rek na doon euh, fu leer foo ko teg rek waaye xëy di bind loolu neex ci nit loolu jeex na fii ci réew mi la ndaxte rek na képp koo xamante ni bind nga fi loo xam ne waratu waroo koo bind rek yoon dina daal di ba noppi rek daal di xamal ñi nga xamante ni convoqué woon nañ leen daal di bind ci moom ay mbir yoo xamante ni dara du ci dëgg bu ñu amee fit rek ñu ko binduwaat gis nañ nag ñu baree bari ñu ngi naan Ousmane Sonko day menacé ki nga xamante rek nga xamante ni ñoom ñooy journaliste yi waaye daal moom li mu wax leer na ci pàccu euh, boobu moom Sonko li mu waxoon nag démb tey la ko gën a euh, dëggal muy euh, maanaam PSE bu président Macky Sall dara baaxu ci nee na nag li mu wax tey la ko gën a dëggal ba noppi rek daal dinay annoncé nit ki septembre bi ñoom dinañ teg seen programme référentiel boo xamante ni rek moom la ñu nar a gouverner ci réew mi waaye nag nee seen tekk tekkaaral bi nag dafa am loo xamante Euh, wundu daal dinañuy euh, lancé 60 euh, audit yoo xamante ni rek semaine bi dinañ ci gis ay mbir yu baree bari ci li nga xamante ni rek gis nañ ko ñu fësal ko ci wàll irrégularité ci ay gestion yu bari fii ci Sénégal li nga xam ni tam moom moo ñeel wàllum dund bu cher bi moom leader bu Pastef bi lee daal dina ci àddu nee na nag ñan ñoo seeral li nga xam ni rek moom mooy dund bi te boo xoolee rek moom ci ay vidéo wam démb ak barki démb li nga xamante ni la doon wax tey la ko gën a wax maanaam Euh, bu nu bëggee li nga xamante ni moom mooy wàllum dund bi euh, daal di saafarawu fii ci euh, Sénégal faaw ñu fexe rek di bay di dundee waaye nag n'empêche que rek fii ak deux semaines moom Ousmane Sonko moom moo ko daal di xamal sénégalais ni rek danañ jël ay mesures yu adéquat wàññi li nga xamante ni rek moom mooy les denrées de base yi nga xamante ni rek moom la sénégalais yittewoo jamono ji bu ñu jugee ci ay kàddu Ousmane Sonko ki ko tontu rek moom mooy leader bu gëm sa bopp bi di Bougane Gueye Dany moom nag daal dinay def benn poste ne rek la Euh, Sonko, la communication de conquête repose euh, sur des promesses mais l'exercice di pouvoir exige des actes rapides et concrets euh, maanaam daal li nga xamante ni fa la ko sénégalais yi di xaar du leen rek du wàññi li nga xam ni rek moom mooy dund bi fexe jeunesse bi am li nga xam ni moom mooy liggéey waaye nag relancer li nga xamante ni rek moom mooy économie bu Sénégal ndaxte rek Sénégal métti na métti boo xamante ni foo ko natt dépassé na ko góorgóorlu yi jamono ji ñu ngi jooy li nga xam ni rek moom mooy dund bu cher bi rawatina nag ñu jublu ci ay tabax tabaski euh, xar manqué lool fi nga xam ne rek moom mooy euh, euh, Sénégal waaye nag toog di def meeting di menacer les journalistes c'est pitoyable ay kàddu la yoo xamante ni rek Bougane Gueye Dany moom moo ko daal di xam le ndax nee na journalistes yi nga xamante ni moom lay ñoom lay menacer di leen yàq lu mel ni xamee journalistes yooyu noonu boobule ñoom ñoo ko jàppale ci li nga xamante ni rek moom mooy les griffes de Macky Sall en mars 2021 waaye nag bu yaakaaree ne mun na liquider journalistes yi c'est peine perdue li nga xamante ni rek moom mooy vaar yi nag mu ngi continuer ba tey euh, di ko rattraper moom Ousmane Sonko euh, ci kaddu yi nga xamante ni rek euh, daan na ko yëkkati ci réew mi ay kaddu la yoo xamante ni rek Bougane Gueye Dany wax na ko nee na réew mi dafa jomaay moytul mu fay ci say loxo kaddu yooyu la Bougane géey Dany daal di yëkkati bu ñu jógee ci Bougane Gueye Dany dañuy dem ci beneen opposant di wuyoo ci turu Anta Babacar Ngom Anta Babacar Ngom nag ku ne xam na ni candidat la woon ci élection élection yi ñu jógee moom nag jàpp na ni daal euh, déglu na Ousmane Sonko attentivement ci conférence de politique bi nga xamante ni rek mi ngi ko doon amal fële ca esplanade bu euh, Grand Théâtre moom nag jàpp na ni bu mu yaakaar ne opposition amul fii ci euh, Sénégal bu fekkee la majorité des Sénégalais wala opposition bi danoo noppi boobaak léegi waxuñu dañ koy bàyyi le temps maanaam ñoom ñu mun a liggéey ñoom ñu toog di observer ay kàddu la yoo xamante ni rek moom Anta Babacar Ngom nee na nag jamono ji di jamono euh, politique encore moins euh, cet euh, politique politicienne qui privilégie les discours et les promesses plutôt que les actes nee na jamono ji ay act la sénégalais yi gën a soxla waaye du li nga xamante ni rek moom mooy yii muy def nee na sénégalais yi dinañ ko juger maanaam daal ci li nga xamante ni daal moom lay teg fii ci réew mi comme ay pas maanaam rupture bi nga xamante ni daal mi ngi ko doon wootee boobaak léegi waaye nag sénégalais duñ ko jugé ci ay propagande populiste ay kàddu la yoo xam ni tam euh, moom Anta Babacar Ngom euh, daal dina koy yëkkati nee na Ousmane Sonko dafa war a xam ni désormais euh, c'est le premier ministre du Sénégal ñu bëgg ko ak ñu bañ ko jamono ji nguur gi ci ñoom la nekk te ñoom nag lu ñu war a def moom mooy daal nekk ci liggéey bi fexe génnee Sénégal ci guute gi nga xamante ni rek ci la nekk waaye nag wër di wax daal kenn xaaru ko fa moom Ousmane Sonko bu ñu yi nga xamante ni rek bañ a délivrer les lettres de garantie aux opérateurs euh, privés euh, ku ci mel ni rek Modou Fall président de la fédération nationale des opérateurs privés Euh, moom nag daal dinay euh, xamal ni rek euh, banque yi ci boppam ñoom ñoo lànk refusé bañ jël lettre de garantie ndaxte rek jàpp nañ ni état bu Sénégal daf leen na yore 91 milliards yoo xamante ni rek ay dette la situation yi nga xamante ni rek ci la ñu jàmmaarloo jamono ji daal moom mooy tax jamono ji dañuy góor góorlu rek ak les moyens du bord ci li nga xamante ni rek moom mooy wàllum jënd engrais bi waaye ki nga xam ne rek moom mooy Moustapha Silla moom itam opérateur la xam la ni la rek euh, maanaam daal teg nañu en place li nga xamante ni rek moom mooy les semences et engrais euh, ci euh, yenn baykat yi maanaam démarré nañu certes waaye am na ci ñoo xamante ni daal amuñu li nga xamante ni rek moom mooy ci wàllum semence bi fii ci Sénégal li ko waral nag du leen rek lu dul banque yi nga xamante ni rek nanguñu délivrer les lettres de garantie aux opérateurs privés bu fa jógee itam dañuy dem fi nga xam ni rek moom mooy Mbodiène fële ca bi nga daal di euh, euh, euh, maanaam faat ci anam boo xamante ni rek jéggi na dayo corps bi daal di calciné ñu ngi xamal ni rek jamono ji famem identifié nañ ba xam ne rek moom la waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo def boobu boobule mbir tamit daal dinañ leen teg loxo foofu nga xamante ni rek moom mooy ca Mbodjee ba tey rek dañuy des ci li nga xamante ni rek moom moo ñeel wàllum presse bi Mamadou Ibra Kane bu CDEPS na daal dina yëkkati kàddu suite ak propos yi nga xam ne rek Ousmane Sonko daal dina ko yëkkati nee na Sénégal il nous faut euh, des hommes euh, d'État boo xam yoo xamante ni rek am nañ vision prospective de la presse mais pas ñoo xamante ni rek dañuy jukk uniquement pour menacer li nga xamante ni rek moom mooy euh, presse bu Sénégal. ñu ñëw ci li nga xamante ni rek moom mooy wàllum publicité de l'avortement ki nga xamante ni rek moom mooy ministre bu ñu dénk wàllum santé beeg l'action sociale bi daal dinay réagir ci diffusion yi nga xamante ni ñu ngi koy amal ci réseaux sociaux yi di publicité ak di joxe méthode yoo xamante ni moom la ñuy euh, avorter maanaam femme enceinte yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk euh, ci couple yi euh, moom nag benn communiquer la daal di fësal boo xam ne rek presse. presse Afrique tamit daan na koy fësal moom ministre bi nag nee na fii ci Sénégal li nga xamante ni rek moom mooy dakkal maanaam ëmb euh, volontairement fii ci Sénégal loi bi daf koy daal di euh, euh, tere yemu ci nag moom ministre de la santé bi nag daal di nay alerter mettre en garde ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo koy def maanaam di provoquer ay avortement li leen ci mën a fekk moom Ibrahima si nag daal di nay xam ne ni daal lu leen ci mën a fekk bari na lu ci mel ni hémorragie infection troubles mentaux de la société ak infertilité infertilité ak li nga xamante ni rek moom mooy euh, infection wala sax nga ñàkk ci li nga xam ni rek moom mooy euh, euh, sa bakkan moom ministre de la santé bi nag lu mu ci teg moom mooy daal teg nañ maanaam daal cybercriminalité mu teg benn service de lutte boo xamante ni dinañu recherche xool képp koo xamante ni rek maanaam auteur nga wala rek yaa ngi def yooyu les pratiques fexe rek di yàq ëmb fii ci Sénégal ñu daal lay teg ci yoon bu fa jógee dañuy ñëw aussi Euh, ci la brigade spéciale euh, des douanes de l'aéroport international Blaise Diagne ñoom nag ñu ngi amal liggéey bu euh, ama am solo ñu ngi xamal ni rek samedi 8 juin vers 19h daal di nañuy teg loxo lu tolloog 20 kilogrammes de cocaïne fële ci aéroport bi ñu ngi xamal ni rek maanaam yooyu les drogue ñu ngi ko dissimulé ci ay sac yoo xamante ni rek dafa amoon gingembre naroon ko yóbbu fi nga xam ne rek moom mooy bitim réew ginnaaw bu ñu leen tegee loxo nag. mu xayma xaymaa vingt kilogrammes yooyu ñu ngi xamal ne rek mu ngi toll ci un milliard six cent francs 600000 francs euh, CFA ci suñuy euh, euh, koppar kat yi nga xamante ni rek ñoom ñoo commandité woon mbir moomu daal nañ leen teg loxo waaye nag lii lay wane ni rek li nga xam ni moom mooy xeex wàllum drogue fii ci Sénégal daal douane bu Sénégal ñu ngi ci amal liggéey bu ama am solo ñu ñëw aussi ci l'affaire Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang bi nga xamante ni rek moom bokkoon na ci li nga xamante ni rek maanaam juróon na fi ay polémique ci réew mi ba ay nit ñàkk ci seen. Euh, euh, bakkan moom Ousmane Sonko nag démb daal dina ci àddu nee na fii la toogoon ci réew mi daal di xamal ni rek am na benn ministre boo xamante ni euh, jël na xaalisu Prodac lu tolloog 29 milliards ñu daal di koy weddi def seen ay njuxum ba daal di jël boobu les rapport daal di koy nëbb waaye nag finalement boobu les rapport mu ngi ci taabalam mu jàkkaarloo te lu yàggul dara maanaam yoon dina ci def liggéeyam ci audit yi nga xamante ni rek lancé nañ ko ay kàddu yoo xamante ni Ousmane Sonko Euh, yëkkati na ndaxte rek ngeen na dossier boobu lu mu jur ci Sénégal euh, bari na ay nit ñàkk nañ ci seen bakkan am na ci ñoo xamante ni rek euh, jëlee nañ ci ay laago ba faw kon nag loolu faaw rek maanaam ñu daal di koy fësal ba ñëpp xam rek fan la dëgg bi féetee yoon daal di ciy def liggéeyam. ñu dem fi nga xamante ni rek moom mooy bitim réew ñu ngi xamal ne rek élection européenne bi fa xamante bi nga xamante ni amoon na fa victoire bi nag Marie Le Pen ak parti am ñoom ñoo ko daal di euh, emporté moo tax nag ki nga xamante ni moom mooy président bu France di Emmanuel euh, Macron daal di nay annoncé rek ni dafay di dissoudre assemblée nationale bi daal di organiser waat li nga xamante ni rek moom mooy ay euh, élection législative premier tour bi nat le 30 juin bi lay doon deuxième tour bi nag nekk le 7 juillet loolu daal la ñu xamal ci yi nga xamante ni rek moom moo fa amoon muy ay élection fële ca bitim réew ñu ñëw aussi ci ki nga xamante ni moom mooy commissaire Euh, Keita ak ñi mu àndal nag dañoo demoon saisir conseil constitutionnel euh, pour maanaam dénoncer li nga xamante ni rek moom mooy am ci réew mi ndax jàpp nañ ni rek vacance de pouvoir dafa am dañoo am président boo xamante ni euh, day dox ci ay ordre premier ministre am di Ousmane Sonko ba tax na rek ñoom dañoo ex dañoo dem conseil constitutionnel pour ñu amanaat li nga xamante ni rek moom mooy élection yi démb na ban ko laajee ci mbir mi ak déclaration bu Ousmane Sonko moom commissaire Keita lu mu xam ne rek moom mooy El Malick ba muy wax moom dafa ne woon Ousmane Sonko day nekk nekk euh, ci wetu ki nga xam ne rek moom mooy jomaay euh, à distance di ko xelal di ko jàppale waaye li nga xamante ni rek moom la ñu gis moom leader bu Pastef bile nekk premier ministre bu Sénégal maanaam dafa euh, jox boppam importance wala rek doole boo xamante ni rek maanaam amu ko day jël ay ndogal yoo xamante ne nii rek waru koo jël maanaam loolu président de la république rek moom moo ko war a jël waaye nag jox na boppam sañ-sañ boo xamante ne nii rek ñoom duñ ko nangu euh, euh, benn yoon fii ci réew mi ba tax na rek dinañ jàmmaarloo ak euh, moom jëflanteek moom ci tànk yi nga xamante ni rek jël na ko moom Ousmane ko ñu tëjee ak li nga xamante ni rek moom mooy éliminatoire coupe du monde le Sénégal bat la Mauritanie démb na Sénégal daal dinay dëggal euh, boppam face à la Mauritanie daal di koy dóor un 1-0 euh, muy match boo xamante ni rek maanaam relancé war na équipe bi di euh, Sénégal ci groupe. ci euh, groupe B bi euh, ginnaaw bi mu amee euh, match nul face à Congo maanaam daal relancé waat na ko noonu lañ ko daal di xamle ci wàllu sport di leen jox dig daje incha allah rabbi demee ci yeneen actualité d'ici la portez-vous bien